ndaje nag li ko dagaloon muy ndigalul sëriñ bi Cheikh Mamadou Mountakha Al Bachir jaar la ko ci Cheikh Mamadou Bachir li nga xamante ni si mooy loxoom di jawriñam fii ci yoon mate ko sëkk ginnaaw bi yàlla dogalee it mu joxe woon ndigal ne jëm ci ay masque ne na ci ñëpp taxaw joxe ci pas-pas mu xalaat ne ginnaaw nun nañu ne ñooy buntub dëkk bi ci lu jëm ci lu digganteem mag mbirum adduna lu jëm ci état ñu ko mën a tuddee bi commune nu xalaat ne ndigalul sëriñ bi kenn waruñu cee mën a jiitu ci xalaatu njiit li nga xam ne moom la yàlla dogal ci bopp bi muy Abdou Lahad Ka monsieur le maire mu am pas-pasu ne dana génne cinquante mille masques moom jaayantee ko daar daar ngir ñu jëmale ko ci bis bi lu ko jiitu am na yeneen yu bare bëri yu ko jiitu boo ko xoolee lool jëmale ci éclairage public bi mu doxee nii ak xar kanam bi ci am yaakaar naa ne ak coppi ko am na ci ndax bu ma bëgg a yaatal lool lool waaye bari na bokk yu ñu doon woo ngir am beneen taxawaay buñ ci gis bu te bañ ci gisoon soo ko duggee it ci inondation bi ku ne xam na ne fan yëpp ci loolu ñu ngi ciy liggéey liggéey bu am solo ak doxin wi ñu ci dox lenn ci loo xam ne ñun la concerné ñu doon ko dugg ci dëkk bi di ko liggéey ànd ko kilifa yi lu mel ne préfet ak sous gis encadrement yi bi ñu àndoon ak Touba ca kanam ci liggéey bi nga xamante ni si nasoon nañ ko ci dëkk bi dañ koy liggéey ak yeneen yu bëree bëri yoo xam ne mënees na caa wax yu mel noonu kon bu ñu see ba tollu fii ah dañuy sant yàlla ndax commune bi moom kenn ku ne xam na ne dëkk bi ak ni mu doxee ak xar kanam bi ko yàlla bindee ak ni mu ni mu ni mu doxee ku ne xam na ne maire benn benn benn commune la ci mboolem communes yi nekk ci réew mi yëpp kon nag bu fekkee yàlla dafa dogal nga jiite ko ne ca kanam war caa doxal bu fekkente ne da ngay xool li réalité dëkk bi di laaj ak li dëkk bi doxee ak ni ñuy war a sédd ci dëkk bi ak ni nga war a fexe ba teg sa mbir ci yoon ba ci administration bi fexe ba doo mën a féewaloo ak ñoom ci yenn contexte yoo xam ne day méngoog dëkk bi mel ne kon day metti dañ naan métti ndax dafay am lool da nga ko a leeral waaye am na ci loolu dund ko rek nga man li ngay mën nag mooy lépp luy kàddu sëriñ bi nga xam ne mooy prioritaire fii noonu daañu teg suñu bakkan doxal ko ni mu ko bëggee ji di ko doxal te yaakaar naa amuñ ci moom ak réeroo te it yaakaar naa ne it li ko dalee ci njiit bi ak benn bis boo xam ne yaakaar naa ñu ngi ciy xëy ba ngoon renderuñ ko sëriñ bañ ci jógee it mu jëmee ci administration mbooleem loo xamante ni si luñ war def ci dëkk bi la yaakaar naa ne kon bu fekkente ne tey taxaw nañ jëf-jëf ju mel nii jëmale ko ci dëkk bi jëmale ko ci dëkk Sëriñ Tuubaa bi ak nit ñi jëmale ko ci wàccaayu màggalu Tuubaa gi nga xamante ni si mooy sunu lépp te sëriñ bi joxe ndigal nañ ko fonk yaatal ko waaye nag nañ ko defee ci condition yoo xamante ni si day méngoog ni mu war a demee ak li nga xam ne dafa dugg ci réew mi nu xool li ko jiitu yaakaar naa ne bi mu xewee ba léegi ñi ngi ciy liggéey lañ ci war a liggéey ndax bu fekkente ne moom am na xalaatu mboolem rassemblement conseil yi nga ko àndal ak action yëpp ñu waxtaan ci seen biir ci xalaatam ñu génne ci ñaar téeméeri million def ko ci dund bi jooyal ko ci askan wi daga naa ne loolu am na impact bu am solo bu mu def ci dëkk bi yëg nañ ko nun nun ñu dëkk ak ñoom xam nañ ci dara ñu wëlbati ko waat génn loo toll ci fukki million ak nangam génn ko génn ko def ko ci wér-gu-yaram bi yóbbu ko ci góornóor ñu war ko def ci région bi bañ ci jógee mbooleem ñi fi feebar te jagadi ñu ci bari nemmeeku nañ leen seeti nañ leen def ci lañ ca war a def te boobaak léegi teggiwuñ ci suñu tànk kon bu fekkee yàlla dafa dogal ñu dajeeg lu mel nii mu xew ci dëkk bi te ñu ñaan yàlla mu jeex fi mu jeexal ko dajeeg ñu jëm ci màggalu nawet kon dana am beneen xar kanam bu ñu taxawaat ci li nga xamante ne si moo ñu war suñu digganteeg dëkk bi loolu nag liggéey nañ ci liggéey am solo solo yoo xam ne ragal naa ne li des ci kanam incha allah le biir yëpp na yeneen it jéego yuñ ci war a doxaat te yaakaar naa ne ndaje yi dana amaat lenn lu ci nekk ko saraa ba gën a yaatu ba lépp leer ci bopp askan wi nañu xam ne daal li nu fi baax liggéeyal Serigne Touba ak bëggam ci dëkk bi ndax kenn ku ci na fu mu la joyal jëmale fa mbootaay yi bari na coow yi bari na waaye ñun fa suñu yéene tegg suñu tànk te fi ñu ko sëriñ bi tegloo fa suñu yéene it romb it lu dul ndigalul sëriñ bi ak itam mu méngoog nag li nga xam ne moo war am ci réew mi muy la kon daal ñu xam ne képp ku nu seen nuy dox ànd ko ak maire bi ànd ko monsieur le maire ak fépp fu ñu mën a dox pas-pas bi ci lañ fas yéene dox lépp it ñu ngi koy sant Cheikh Sidi Mbacke Abdoul xam ne mooy suñu kilifa mooy suñu buntu tey tey ginnaaw yàlla luñ ci liggéey moom lañ koy servir bu baaxee mooma su ci leneen amee noonu te loolu yàlla nañ ci yàlla musal te it fas nañ yéene incha allahu rabbi mu daje ci ngërëmul maamam Seexul Xadim wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu